Jalimori Jalimori sama gelu felaan ndeysaan Jalimori bu felaan ak Cheikh Ibra Cheikh ngemu ngemu lu premier tour poids léger yi la nekk waaw Cheikh Ibra ak Jalimori bu Mboudaay dalay mbot dalay ee tegal na sottiwul Jali moo Ibra Jali da Ibra Jali moo di Ibra war na yaa ngay bëre lu doy waar na ko ba rey na Seydou daan na Jali moo di waaw saay saay bu ñongoon loolu gis naa argile dara amagul dara amagul loolu gis naa argile loolu gis naa argile daan na ko jël war rek na Gorgui Sarr daan na Jules bu Kaano sa ñaari xale yaa nga jabe léegi way bëre lu doy waar sa ko ko jono sa ko robo la na ko walo ko ci premier poids wala war ko demoon kaa yeex waay ba da ngay jaxlo Check out how you burn it. Don't say how much we store. साई साई अक्षय कृष्ण देखिया ये देवा साई साई साई कृष्ण देखिया ak saay saay Cheikh Ibra ak saay saay ke poolu lo kiiɗo gar bindo yimɓe temede no kiiɗo gar bindo munamaf ke poolu wana jacob balde kana ɓawut nam nam dangan wala dangan batin batin Balde. Jacob Balde yi waaw ay ca poids yaa ngay dugg baatin dugg si na ba Jacob suba la poids lourd cinq cent mille ca Boutjolou suba incha allah cinq suba incha allah poids lourd Mbour Diame rendez-vous à suba cinq cent mille yéen poids lourd yi ak man. Gara doo dox suñu ginnaaw ah, ngir Oke, okay, stop. wa aja minja badara minja internet akan baku minja fa baku saay saay trois combats yaa nga ca digg géew ba Bakou Badara internet gën koo xam si mbin jaabu mar faafa ko le technicien eh war na ko ndombo Badara mbin jaaba jaab internet l' internet de mar faafa ko waaw waaw xale baa ngi noonu Badara mbin jaab internet mar faafa ko xale baa ngi noonu doomu mar la internet le technicien de mar faafa ko mu ngi noonu di defati kemtaan kenn du moom mar faafo ko aca saay saay

sori na ay waay rëcc na ko xale ba génn na ca xale ba génn na ca waay ndeysaan ndeysaan te ne yaram ba daa tàng moom itam nga ca digg géew ba di yëngu pause walaat doomu njafe ba ak Pape Aliou daw na jëli saak ba na ko ay sottiwul eh walaat ramassé na ko waaye déedéet Pape dëbb na ko sol dëbb na ko sol lu muy mujjee combat ba yàgg na metti am ñeex am kané amna am xorom am na soble ay ca wa pap Aliou Dia ak walat ñu ngi sa digg géew ba lay démé sa suné mbokk yi rang muy paral eh taw jëli ko dalay daan eh bu rëccee nga xam mo yow am mi lu ko dal jaay layla la pap Aliou mi mbeur la wala walaat ay bari fondu la walat lolou bu ko di maye ah walat liyan yi boko amé dang kay exploiter nak nak nag yombul ay way walat, walat fa nga agone papa Aliou mom du yon mu recc hmm dang koy dan ay papa Aliou ndaanaan la ndeysaan momit ci xalé ya ngay beure lu doy waar bii hmm? combat ay naataangoo lañ ndeysaan xamanté nañu yag nañ dalanté ci àll bi motax xam nga rek hmm si waay di def day leer ku jum daanu làmbaa ngi هن خمول لله هن خمول جاني مخزين واو واو نون لاي ديمي لا اي اي اي ولات wala ah, waaw xaaral xaaral mais ku ma bàyyi ba yuuxu wala jël moo jël sa téléphone boobu wala tak Pape Aliou Dia wala tak Pape Aliou Dia nga ca waaw ndeysaan doomu njafe bi combat bi metti na waay ndeysaan kay xar wala lan action day matuwaay xar jëppen wala xartar bi wala wéele wala lan eh, prof de physique fi nek ni nii yaa ma xam ko ëpp contact yaay daan fa ñu yegg ci lamb ndeysaan bu ngeen fa tolo rek ko ëpp contact ya si génn wa loolu ya ngay dugg ba léegi nee naa leen rambassis moy duggu ci nonu si noonu maam Dour borom Mbassis loog mooy si. Eh, eh. baba yàgg na ay ca le combat bëre bëre bëre bëre bëre bëre bëre bëre bëre guddi na guddi na guddi na Badara Mbengue Thiam saay saay Gorgui Sarr internet masafa ko njogoon Badara Gorgui Sarr wala internet ak saay saay wala njongoon ak mar fafa ko jàppante nañu combat bi yàgg na deuxième round wala dara xewagul ba léegi Badara bi jàpp saay saay amoon par Fafako saay saay wàcc na ba maase si suuf Badara Mbine Diap ak ki nga xam ne mooy Gorgui Sarr deuxième demi-finale ba walaat bu Ndiaffé moo sëgg ca wel la parce que demi-finale yëpp sëgg nañu dara xewagul ndeysaan defaatu Adama Jalingom ak kelele Sine Saloum ca micro ba Babou Sène eh, saay saay daw na jëli saay saay yang ca na ko saay saay ndengeñ na ko saay saay ndengeñ na ko wala laa ngi jéem a diriger waaye saay saay day rës saay saay day rës day xool a diriger day saa yéenee fekk ko ndaama neexul a bëreel surtout ndaama buy màcc ndaama buy wàcc bu wàccee day neex day maaseeg suuf si day naqaree jël Badara def lu lépp mu sigi waaye Gorgui Sa taxoo xam Gorgui Sa na ko mu bañ wéeru na ci kawam Badara wéeru na ci kawam kase nañu ci kaw eh Gorgui Sa Gorgui Sa am na ngëm wala nangu ñu jàppante bi ay xale yaa ngay bëre ci kaw ndeysaan ni ma leen ko de huit minutes bëree gum nañ plus de huit minutes ñu ci dix minutes dara xewagul eh jël yoo tànk ba waaye sottiwul بدرا ساسايك بدرا اي تجيكو بيس سوكي بول arbitre combat bu mel nii da ngay jox kenn avertissement bu ko defee bëre mun a am da ngay xool ku si arrière nga jox ko avertissement boo joxee kenn avertissement rek bëre dina am waaw waaw Géant moo yëgal loolu Géant bu Bargny wala Géant bu Tëngéej wala boog ma ne Géant bu Log <laughs> kenn xamul dëkk Géant Géant foo dëkk e waay Géant foo dëkk e eh, batana prise na ko laa ilaaha illallah <laughs> kii internet a na ci kaw taabul ba yéeg na ci kaw taabul ba batana yéeg na ci kaw taabul ba yéeg na ca taabul ba Badara yegg na ca taabul ba yegg na ca taabul ba Badara bin jàpp internet yegg ca taabul ba la ilaha illallah lu musul am ca taabul ba prise ki nga xam ne mooy Gorgui Sarr prise na ko prise na Gorgui Sarr Badara bin jàpp internet la ilaha illallah kii prise na Gorgui Mbine Thiaba gi noonu saay saay ko e daw na ramasser ko Yunus ak Yunus ano papa Yunus saa saay daan ca waa Ousmane Sambare mooy dugg noonu Ousmane Sambare ngi noonu ci biir aca Badara Mbine Thiam ziar ziar naa leen mbër yaa ngi mbulum de sori si de gis nga nu mu demee noonu ah nice compétition rek compétition rek hmm. waaw tey nga ñëw bëre lu ah, rek soo lamb doon ci weeru koor ah ba xam nga ci dara moom ngay wone man de maa woon ba bugg a dee ndeysaan billaahi tey nga ñëw def di entraîné di contact ci biir koor gi nga ñëw mbulum def fi différence ñëw ba final looy wax tey ah di xanaa di may ma ndam rek li ma def avant premier tour ba deuxième tour ba fii moom rek laay defaat daan ko ñibbi. fi ngay bëre final xamoo ko. xaw ma ko nag soo leen laale. non non. billaahi doo ko yóbban. ah nga taxaw rek. nga taxaw rek. gañ na la de. internet la. <laughs> ngir ziar naa la. delloo naa ziar. def jàmm. sant bi naka la. Marodi. fan. bu ma siis lool. ma yaay taxaw final. waaw. maa taxaw final. bi nga taxaw final amoo ko. maa ngi koy gis nii rek. mosoo leen la. déedéet. mooy le technicien. ah. mooy le technicien internet. Ah, moom la. waaw waaw ku ne technicien boppam la de. Ah. waaw waaw. doo ah Dua ko may dara ah la mu la de lu mu laaj rek la ñuy def waaw waaw santal gars yi ah ñan ngay sant ba mu sant la ma fis yëpp waaw waaw di leen wax ni gën maa ñaanal rek waaw waaw ñu lay jaajëfal ba jaajëfate final point les Badara Minjap Badara Mbarodi woon na ko Ndombo Badara Mbarodi woon na ko Ndombo Mbarodi